rubbama bara firib na anil maqaami daraja man koo xam ne itasrafa sappuna alayhi ci moom wa rubbama bara firib na itam xanu ci daraja maqaama man koo xam ne wasala jote na ilayhi jëm ci mu ne ñuy wax ci tasawuf ñaar lañ léeg-léeg na kuy waxee maqaama bu mu xàggagu kuy wax ci maqaama bu mu xàggagu xaj na jege na ko seen na ko waaye mm-hmm. li la xam ko wax ci maqaam bu xam ne xam dafa ci dëgg xam na mm-hmm. wasaalika loolu mm-hmm. multabisun aji na ñoom ñaar nag ne ko ñoo xam ne illaa ala saahibi basiratin ndare ci borom ji sa xol lu may ko yàlla bëgg xolam xee ko ca daal moo leen a la yem baxi du xel la li saaliki ñaal saalik ay yoo abbira bu mu firihaat an waaridaati yi ci waaridaatam waaris mooy lii dikkal jaam boo ci borom saalik mooy ku sóobu yoonu mbaax su fekkee yow nim see wàllu yàlla dikkal na la ba nga seetloo yaakaar ne mën na laa jotale ci yàlla nga daal da cee jàpp comme nañ la ci joxee ndigal sooy jëfandikoo yooyu de mbir yi nga yëg muy gën ci <laughs> hmm. bal de faral de ko waxtaanee. Hmm. waaw yàlla xamal na ma nangama. Hmm. wan ma nangama. yooyu yëpp gannaaw taalibe nga buy dem xàgg boo fa nga jëm. boo ko de waxee. fa inna dalika naka loolu. yu xillu dafay néewal. xamalaha liggéeyu waari daal yi. fi qalbi yi ci xolam. min allahi la. su fekkee suulaaloo ko ndax weer ko dafay waral na njëriñu waroon a toll ci yow bu ca tolloo waaw ah, ndax mbindee bi mën naa bu ci jotee dana am luñ ci yàq wayam na woo te dana ko tere wu jooda sitqi am ak dëgg am ak dëggu maa rëbbi ànd ak boromam te itam dala yàqal nga doy loolu yàlla xam ci yow rek waaw nga yàqal nga doy loolu yàlla xam ci yow rek mu ne laata mu dand balle sàllal yadaka sa loxo min ilal axsi jëm ci jàpp minal xalaayiq ci illa an tara gare nga gis ne annal aji joxe fii ci ñëw mawlaa ka sa borom mu ne bindéefi ci xàggule ci xam ne loo xam yàlla la ko jox mm-hmm. ñoom dañ di jaar waaye mm-hmm. jarul nga def ko def mm-hmm. soo demee ba xam ne loo xam dëgg-dëgg yàlla mooy ki la ko jox kon bëgg ci nit dara wala ragal a ñàkk ci nit la dañ laa jiitul ne lépp yàlla moo la koy jox kon a du la ci fekkante mhm. du la ci fekkante mhm. du la ci fekkante gannaaw mhm. fekkante woon la ci nag nit ñi duñ la gàllankoor ci li ngay rafetalee sa diggante yàlla waaye ni yow nag muy ki lay jox wala nit ni yow muy ki lay xañ rek mën naa def ci yow nga ànd ak nit ci wala ragal a ñàkk dara te nga ànd ak nit ci lu dul ci ñoom da nga xam ne ñoom feeñu waaye lañ rek. Mm-hmm. waaye joxekat bi dëgg dëgg dëgg. Mm-hmm. yàlla tabaraka wa taala. Mm-hmm. laata mu dan na bal de tàllal. yadaka sa loxo. yàlla na ax bi jëm ci jàpp. dinañ xalaat ci bindee. ci laan taraan dara nga gis ne dara bu nga gis ne. ne am na lu mu wax naka aji joxe fii ci ñëw. moo la ko sa loxo. loolu baax nit daal ak looy mën a jëlee ci moom. lu a am. bu ñu ko mën a dikkee. Mm-hmm. na xam ne bii dikkuwaay la. waaw foo mën a dikkuwaay rek. Mm-hmm. du ko bàttaloo xam nga wax dëgg rek. mais saa kunta boo nekkee kasaalika naka noonu. Mm-hmm. soo demee nag ba xam ne loo xam yàlla mooy kër ko jox. mbindee bi xanaa dañ cee nekk jaaruwaay rek. fokkut na ngay jàpp. maa li nga xam ne. waa fa xas nga dëppoo nag ci yow. xaleel mu xam-xam. da ngay jël li nga xam ne xam-xam nangu lim nangu nga mooy ki lay jox. Mm-hmm. nga def koo xam ne su dee am xëy na ko joxe. Mm-hmm. waaye koo xam ne su dee am xëy na ko joxe. Mm-hmm. ko bu la joxe. delloo ko. xam-xamu tasawuf li mu nangu nga jël ko. mooy li am ak sa soxla. bul jël lu ëpp sa soxla. wala boo jëlee lu ëpp sa soxla. da nga koy da nga koy toxal ci ñeneen rek. wala boo jëlee loo xam ne ëpp na sa soxla. jëlee ko loo ko de ko téye doo gàllankoor. waaye da nga koo toxal ci ñeneen rek. ne ko idaa kunta boo nekkee kasaalika ne ko noonu soo demee ba xam ne kii joxe dëgg-dëgg yàlla la. Hmm. xanaa nit ñi daal dara fay boo dañoo nekk jaar waaye rek mbindee. Hmm. kon fokkus na nga jàpp. Hmm. maa li nga xam ne waa Fakka dëppoo na ak yow ci jàpp ko. xale bu xam-xam. waaw ci wàllu soriya. nga de wattandeku. jël loo xam ne ki ko joxe. soriya nanguwul mu joxe. ci wàllu tasawuf. Mhm. nga ne waat ndeku jël loo xam ne. Mhm. sa soxlaa gudd. su mhm. dul ne ba ko jox kenn. rubama stahyaa xeresat na. alxaari bu xaari. ay yar ma ba mu yëkkatee ak. xaajatoo xaajoo. ila mawlaahu jëm ci boromam. liktifa yi ngir doyloo am. bi ma si ati ci coobareel boromam. mu ne léeg-léeg nitu yàlla. da ngay toog di xeeral sa ñaan yàlla. Mhm. léegi rek dooleel yàlla soobu mhm. léeg-léeg loolee nit yàlla nu koy def. Mhm. di xeeral sa tawatal yàlla benn xaajo. léegi rek la yàlla dogaloon dem bu yàgg yàgg. dégg nga kon fa kee fa la yegg sëy. ndax loolu ci tegu. waaw. mu ne fa kayfa laa yastawii naka lay ñàkk a xerete fa kayfa laa yastawii naka lay ñàkk a xerete ay yar fan ha ba mu yëkkati ba mu yëkkati haaja mm-hmm. ilaa xaliqati yi jëm ci bindee mm-hmm. ba bi mooy mm-hmm. léeg-léeg nitu yàlla teewlu coobareel yàlla xam ne dogal na la mooy dogal ba xàggal danay tax mu am kersa ci di tawatal yàlla benn loxo koo mel noonu. Mm-hmm. xanaa kon koo mel noonu. Mm-hmm. mën na ñàkk a ka mën na ñàkk a am gerte ci tawalal mbindeefu yàlla la. koo xam mm-hmm. sa borom sa yàlla may ci tawal la. kon kay mbindeefu sa borom nga war a gën a xeex tawal la. sa borom di koy. waaw. mu ne isal saba fa kay bala yetta yi naka la ñàkk a herete ay yarfaa mu yëkkati at aajo ilaa xaliqati yi jëm si mbindeefu isal saba sa bulante alayka ci yow mm-hmm. amraani ñaari mbir mm-hmm. su fekkee ñaari mbir dañoo sës ci yow mm-hmm. nga de seet boo cee def fanzur na nga seet asqalahuma ba ca gën a diis ala nafsi ci bakkan fa tabihu nga topp ko fa innahu naka luy mbir la yasqulu duy diis alayha ci bakkan illa ma bare lu xam ne kaana nekk na mu xaqan bi dëgg hmm. su fekkee da ngay dengi dengi ci def lii ak def lii hmm. da ngaa seet rek la ca bakkan hmm. nga dem ca loola ndax bakkan dëgg dafa diis ci moom waaw lu ko neex rek la xam te dëgg dafa wex te li muy bëgg mooy de liggéeyloo nit ki ci li ko neex rek loolu moo tax saa su nit rek du su ko bañee nag da nga ko jaay gare mhm. sel mu baax a baax mhm. te yaa ngi amee diw sàngam mii ñaari junni mhm. ñaari junni nekk ci sa loxo nga war koy fay de xalaat léegi ndaw soo koy may dafa fas waxin ko xam nga wax dëgg yàlla fay kay moo gën a jàll bakkan li muy bëgg ci wàllu bakkan moom du nangu fay bor bi waaye demal ko rek ak yi demee noonu ak yi demee noonu isal tabasa bu lëntee bu jaxas bu lëntalooyee mm-hmm. aleyki jew am naa ni ñaari mbir ñaari mbir buñ si salooyee ci yow mm-hmm. xañ na bumu ci maanaam mën koo jox loo baax ci sëriñ mm-hmm. fanzur na nga xool astalahuma gën cay diis seen ñoom ñaar ana nafsi ci bakkan da ngaa seet ba ca bakkan gën a bañ parce que bii mu nga topp ko su waree toppal boobale de ba yénn woo nag luy mbir layet xul duy illa ma dara loo xam ne kaana nekk na mu xaqan bi day mu ne min alaamati tiba min alaamati tibaayal hawa bokk na ci mandargaam topp bànneexu bakkan almusaaraatu gaaw ila nawafilil xayraati jëm ci naafilay hiwi wa takasulu ak tayal anil qiyaami ci taxaw bil waajibaati ci farata mooy nit ki boo gisee mu am kàttan ci naafila hmm. waaye nag dafa sàggan ci farata hmm. mandarga la ci ne li muy def nii hmm. awan nafsi moo tax rek waaye du bëgg yàlla du fonk mbiram yàlla su fekkoon bëgg yàlla li sama borom gën a fadeel loolu koy gën a fadeel waaye gannaaw li borom bi gën a fadeel loolu la sàgganee topp lañ gën a fadeel mandarga la ci ne lañ a fadeel la cay rek moo ko xam nga tey ci misaal yaa ngi liggéey loo ay nit hmm. war leen a fay hmm. fayu la leen li hmm. nga ne yaa ngi may ay parti mag xajali ni du farat yow soo mën a xaji nga xaji mooy farat soo mënta xaji xaji wàcc na waaye xajali ni mu xajali ni moom xam du farat waaye na fay nit ki xam faratal ñu nga liggéey loo na fayoo leen nag jaarale ko di jël ay nit rek xajali mandarga la ci ne du affaire bëgg diina mm-hmm. waaye dañ laa tagg ndégi bi ngóor yi ngay def ndax mm-hmm. may na bor mm-hmm. duñ ci tagg kenn <laughs> may na bor duñ ci tagg kenn may na gëm noonu liggéey la loolu duñ ci tagg kenn loolu duñ ci yéen kenn duñ ci ñee kenn waaw ah. seen bu baax a baax waaye nag dañ lay bàkk ci la de mandarga la ci ne lii moo la neexal ak yi ko demee rek bëri na lool naa fi lay yu gën a bëri mooy gën di ànd ak lu lu bakkan bëgg waaye farata ñaare du ànd ak lu bakkan bëgg tey julli jot nga dem julli ji rek. Mhm. ci jàkkee ji nii rek. Mhm. wala julli jot nga julli. Mhm. lu tax ñëpp di tagg naan ku mu am diina. wala weeru koor jot rek nga wax. lu tax ñëpp di tagg naan ku mu dëddu àddina. déedéet. wala xam ne xaaral génne xaaral kay jox ko ñu ko moom rek. lu tax ñëpp tagg naan ku ko tafe. xam nga ku wàgg rek. farata yi ñaare duy am yooyu. waaye naafila yi mooy faral di am yooyu. ki sàggan ci farata yi nag. di kërti kërti ci naafila yi. mandarga la ci ne yoon na yooyu bakkan di bëgg kanam ci naafila mm-hmm. moo ko ci taxaam kàttan rek mm-hmm. waaye su fekkoon bëgg yàlla dëgg-dëgg la mm-hmm. ak ragal yàlla dëgg-dëgg la yàlla def mu gën a fare loolu koy gën a far dégg waaw mi na laa métti tibaan xawa bokk na ci mandargaam topp bànneexu bakkan al musaaraatu gaaw ila nawafilil xayraati jëm ci naafila yi wa takaasulu ak tayal xanil xiyaam yi taxaw bil waajibaati ci way waay sama benn mbokk bu góor bu nekk Dakar ñu ko wax Basiru dama yàlla di ko lii moom ren na yàlla affaire yi xaajal yi nit te xaajal yi moom da ko def moom daal moom mu yow boo mën a xaaj xaajal mën a xam mais na di xaaj yow la woon xaaj xaajal wu la doon na na dakk léegi léegi moom la ko wax waaw moo ko ne dama ne ko sa bàyyi dimbale na ni ko noonu mën naa farata ba faatu waaw waaw ba ko ci bàyyam foo xeer boobu la dem xaajal su fekkee nga mën a xaj da ngaa war a xaj waaye nekk di xajali nit ki xaj warul moo xaj waru ko rek ki mën xaj xaj waru ko rek yow mën a xaj dama xaj jëkk bala nga xajali kenn seetlu la ko baax a baax soo ko defee baaxal dal na kuy dimbale nit mu xaj jeexam mu ne xayyata tënkee na attaanaati jaamu yi bi ayaanil awqaat yi ci jëmmi waxtu yi kay la yem naa ngir bu dee la tere ana walit jàmm yi mhm. wujudu taswif bi xamal néeg-néegal taswif mhm. ma sawfa amalu kaza wa kaza mhm. sama borom boo gisee léeg-léeg jàmm bu ko santaane de ko tëralal waxtu wax ne fii la dalee fii la yem diggante bi kenn waru koo def wala kenn waru toog mu jàpp defoo ko xam ne ci nit ñoo xam ne ku leen defut noonu dañoo doon danaa ko def danaa ko def danaa ko def danaa ko def bala doon njëriñal def ko faat leen kenn ku baax a baax. mais julli gi daal bi la waxtum dalee bi la waxtum yem. diggante bi daal mayuñ kenn. mu tawum jaata julli wu. suñ ko defoon am na ñoo xam ne danaa julli danaa julli danaa julli. ci la ñoo nekk duñ ko amalaat. wa wasan yaataral na. alayka ci yow al waxta waxtu wi. kay tappaa ngir na def. la ka ñaar la hisatu lixtiyaari ci rëb tànn. ñaari jaamu buñ ko sàkkalee waxtu. boo seetloo lañ ne mooy waxtu wa. jaamu ko man naa bañ a nekk di ko xeer mhm. pour na ko jaam mën a def ci waxtu ci mhm. anam goo xam ne du ko tàggaleeg sa bopp mhm. te ci misaal buñ ne mootaaran ci sibaar def na ci ñaari wax te sibaar yow li nga koy waajal julli ko mu nga moom waxtu wi yaatu waaye nag ci sibaar mën naa jot nga xam ne sa sago ba def ko ci waxtu du la yàqal lenn loo yitte seetlu bu baax a baax waaw loolu la sama ne waxtaan ak yaatal na. léegi al waxta. te tabqa ngir na def la ko ñaal la. te mm-hmm. dootul ixtiyaar yi. Mm-hmm. tuuti moo ci def rek. Mm-hmm. cërëb cërëb cërëb cërëb cërëb cërëb cërëb cërëb cërëb alima xam na moom borom bi. xillatanuhu dina baadi néew ak buur ak jaam yi. ilaa muamalati jëm ci jëflante ak moom. faaw jaba mu waral alayhim ci ñoom. wujooda taati yi xamal toppam mhm. borom bi xam na ne bu seetaanee jaam ñi rek mhm. xamuñ takku wala hitte yi mhm. xam ne jëflanteeg seen borom ci nangu seen jaam gi nangul ko mboromam gi mooy leen di xamal njëriñ bu seetaanee nit ñi rek nit ñi duñ def loolu loolu moo tax mu fàttali ci leen nangam fokk si da ngeen ko def nangam fokk si da ngeen ma ko defal wasaaqahu mu màng leen moom borom bi ilayhi jëm ci le bi salaatilil ijaabi ci ci seen yaa moom farataal la su ko defee loolu ñoo diggum leen ñoddi kenale leen ci moom la mais doo leen takk seen di leen ñoddi muy ndaa doon haji ko hiimu na mais bu ko sa borom min xawmin ciw nit hadis la yu saaqoo ne ñooñu def na leen màng jël jënnati jëm ci àjjana bi solaatali ci ceen mu ne yàlla bu doon néew ah mm-hmm. takki ceen gi ki mm-hmm. da ko ñotti naan ko fokk si da nga dem àjjana mm-hmm. loolu moo koy yéew daanaka suñ borom loolu la ñu defal ndax farata ba sañuñ ko ñàkk a def yooyu mooy suñ demee kay àjjana te su du doon farataal mën nañoo nekk de ko sàgganee rek kon daa mel dañu takki ceen dañuy ñotti naan fokk si da ngeen dem àjjana loolu la ñu rek dégg kon ñu jàng loolu beneen des na tuuti. waaw mu ne aw jaba waral na moom yàlla alayka ci yow. Mm-hmm. wujooda xidmati xamal liggéeyloo. Mm-hmm. farataal na ci yow nga jaamu ko. Mm-hmm. ba ma aw jaba te waral na alayka ci yow ilaa du xoola jannati ndara tàbbi àjjana. jaamu gi yaa cee demee àjjana. Ah, kon daanaka dalaa takk. dinañ jot naan fokk si nga dugg àjjana. waaw ah. gannaaw fokk si nga jaamu ma la wax. te jaamu gi moo la yóbbu àjjana. daanaka wala ne fokk si nga dem àjjana. kon ñu jàng loolu. incha allah. Mm. bu xetlil ko allahu yàlla min mm-hmm. soowati ci bànneexu bakkanam mm-hmm. waa yuxrijoo ak mu génne ko moom yàlla mm-hmm. min wujoodi xaflati ci xam ak càgganteem faqad istanjasa haskanee na lot al qudrata kàttan al ilahiyata lay ko jur borom nit warul de wax yàqu naa jàpp mm-hmm. ne man daal fi ne baax mënatuma koy def mm-hmm. nit ak lu mu sàggan sàggan sàggan mm-hmm. na xam ne yàlla lotteewut génne ko ci càgganteem googa yóbbu ko ci góorgóorlu ci yàlla nit ak lu mu bakkane bakkane bakkane na xam ne yàlla lotteewut génne ko tàggale ko bànneexu bakkan kennale ko ci moom waaw waaye xàgg boo xam ne façon ne moom gaatu ko mën a reebaa loolu xam nga ne lotte yàlla la. Hmm. wa kaana allahu ala kulli shay'in muqtadira. Hmm. wa kaana te mos a dëñ. Hmm. allahu borom bi. muqtadiran daaji man lool. ala kulli shay'in. rubbama warada dikkat na. azlamu la ndaw yi mooy métti métti tiis yi. alayka ci yow. li yu'arrifaka ngir ne mu la xamal. xadra ma kem li nga xam ne hmm. man na xew le na moom sama borom bi jëmale ci yow hmm. sama borom léeg-léeg mu xam mu wane mu wanee la xewal ak jàmm xewal ak jàmm hmm. teg la tiis léeg-léeg léeg-léeg sama borom tiis jàmm fekk teg gam ko tegee tiis noona xamalee ko ci xewal gam ko defaloon su ko dee borom bi mën na te du la ko subaana mu xamalee la xewal bàyyi fi xewal bi mu sax ànd ak bàyyi xewal bi mu sax daal hmm. sooy ñaan sooy boo nga ñaan loolu waaye du la teg lu métti looy xamee xewal ak leneen laal hmm. moom jaru fa dégg hmm. man lam yarif ku xamul xadra ni ne xewal la arafa mu xamee ko ñu jot wax daan ay jaamam ñàkkam warom dafay na tooy ñàkk ko mu xamee ci lam xamoon laa tudhib ka bu gëlëm loo bu la jommal waaridatu niami wérote xewal yi xanil xiyaam yi ci taxawee yoo ko te suufle ci caaqi ak cant day xewal bu ñu dikk bari lu mu bëri bëri bëri bëri hmm. bu mu tee rek la ca de sant nga hmm. di góorgóorlu xewal yi daal buñ dema dema dem ba hmm. nga fàtte ne xewal la fàtte ne sant la laaj fa inna zalika naka ma bokk na ci li nga xam ne yow tu dafay sippi toujours xasida ci am sa daraja dafay waral nañ la doon daraja ba mu waroon am ci xadratullah nga ko xewal boo ko xamee mu bëri ta hmm. nga sàgganee sant ga hmm. dafay waral na nga toll woon ci koy xewal hmm. te daraja ak naw te mu kon xalaawatil hawa sax ak bànneexu bakkan sax ak bànneexu hawa minal qalbi ci xol moom addaw mooy jàngoro alxudaal bi daal jëlee ci faj nit su fekkee hawa nafsi hmm. dafa dëgër ci xolam hmm. ku mën de génne hawa nafsi ci xolam boobu hmm. dafa mën a jubbanti mukk xol bi daal bëgg hadis rek la feesee dell dell dell te loolu mu ngaa fees dell ci xol ba borom kenn du ko mën a jubbanti ndax loolu mu ngi fees dell ci xol bi xol bi du mën a dëgg ci yàlla de ko ñor te xol moo lëwéne cër yëpp su fekkee xéwén na cër yëpp dañuy xéwén bu hmm. yàqu cër yëpp dañoo yàqu loolu moo tax nit bu fekkee xawaa dafa am ci hmm. ku ko bëgg a jubbanti may hmm. ko moom danga koy tàggale xawan na soo ko mënul nag doo ko la yoxle ji duy génne ab saxwat sa bànneex mel xal bi ci xol illaa saw bu ndare ragal wala ñun bu daal di tiile. ak sawqu wala cofeel. mutlaqun bu daal di jàqal bu daal di sawar a jóg. xawa nafsi nag boo amee doole jokkoon. kenn hmm. ci ñaari yëf moom hmm. ngay génne. settantal màgg hmm. sama borom. settantal tatak mbugalam. settantal yow ni nga néewee doole. settantal lu bon ni mën a sori leen yërmande yàlla. dama dem baragal loo bon xam ci suba dana waral hawa hmm. su la bëggee jëmale fenn ragal nga ragal lu bon hmm. hmm. wala nga fay àddina bi ni du xaajee dara nga fay xewal xaajana ni mu demee loolu laa sàggan suñu daal ba xam ci cër danaan tax xel xelu lu baax la jëmale ci yàlla loolu lu si gàllankoor bi see ba bañ ko naa la tax dox yu bon ngay gàllankoor si àggee xawaat na ñu doy dégg nga kama laa yuhibbu ni nga xamee ne du sopp moom sama borom alhamala jëf almustaraka jëri suñ bokk kasaalika naka noonu laa yuhibbu du mu sopp alxalba xol almustaraka jëri suñ bokk sama borom ni mu bañee xolam sa xol bi nga faral ci keneen yàlla ko moom soo demee bay soo demee bay gëm nga gëm loolu rek mooy yàlla ba fasaale keneen mu ne yàlla ak moom ci sa xol hmm. noonu la bay nga ne def. bés bi nga ne jublu jaamu nga ak keneen. Hmm. alhamdulilah jëf almustaraku jëri duñu bokkaale. Hmm. la yaqabalu. sama borom booy def te moom rek taxul dala def. da wax ne comme moom xoomal na. na la bàyyee ki nga ko boole. kon wal qalbu xol hmm. al mustaraku hmm. la yuqbil hmm. du jullu alayhi xol su fekkente ne itam du yàlla fa ca nekk wala du yàlla rek moo ca nekk du mën a doon bu sama borom di tàdd dëgg rek ndax du dëggu si si so si sa anwaarum dafa am ay leer yoo xam ne usina digga def na ndax ñu naan leen fi lu sooli ci tab bi. Hmm. waaw noonu ak ay leer. Hmm. yoo xam ne su ne jot bi doxooli ci tab bi. Hmm. mooy jot ci yàlla daraja la daal. mais moom ñu ko dund ñoo ko xam. rossina. alayka ci yow. alan waaru leer yi. fu wajadan mu fekk alqalba xol bi. masuwan muy lu ñu feesale. fi suratil asaari ci melo bindeef yi fattaxalat mu laxas min hay su nasara fo wa léeg-léeg nit sama léeg-léeg may ne danay dem ba dëgmal ko bëgg àddina ya xam léeg-léeg mu yëngatu ci lu baax dem ba may waroon ko yaa fekk waaye xol bu ñàkk a dëggu ci yàlla yàqal ko loolu dafa yàq far weex nanga féexal xal ba sa xol minal axyaari minal axyaari hmm. yu dul dara hmm. soo ko defee yow la ko dana ko feesalum borom bi suñ maari bi ci xam-xam hmm. waaye yaa ci góor xol bi da nga ciy génne lu dul yàlla parce que ne dëkkale ji yàlla mooy tax sama war a defal ji yow waaw def ci dërëm mu ne xajuma ci suma suuf si xajuma ci suma asamaan si si ma xaj ma xolal jàmm Mm-hmm. laa ka sabti bal di yéexlu ñu ne ñoom am na wala may mm-hmm. walakin li nga ne sabti na nga yéexlu min mm-hmm. na fekk ci sa bakkan mu jëlale xabaar yi xamal jublu si xamal jublu tey dafa am loo yëngatu di yëngatu di yëngatu mel ni soo jël natiija ba ba sikk la nga yëngatu ba sikk mbaaxal ba am bi nekkul sa ñàkk a dugg la ko sab ci bali yow melu ci borom bi am na wala may nangam def naa ko nangam def naa ko xama ci nangam su nañ dana may nangam sa tax nga yàgg ci te gisoo lañ ca wax loolu bul ko xen mbir ma jàpp ne bu du dëgg wala nga ne ko xen sa borom jàpp ne rek moom li muy digal a dul def wala kenn li fi nekk ci tafsir na nga yéexlu ñu naan si ci sa bopp. bu jooju def ba da ngaa seet sa bopp. ci sa yéen a bëgg. fo kooku ay xàq fil awqaati ci waxtu de. yow gënu dana jàpp ne xanaa war a mayal. xàq bu xamee ci waxtu. nga bàyyi ko bu waxtu nga wéy. xàq boobu la moom la leen mën a fay. mu dee julli jotoon na. julli ko doon bu waxtu nga wéy. julli ab xaq la bu ñu am ci aw wax mën hmm. na koy fay hmm. ci weeru koor xamoon na fan bu mu xooru doon hmm. mu de ab xaq bu xam ca waxtu woowa mën ah, na koo dawaatalee beneen beneen jamono waaye wu xuququl awqaat xaqi waxtu na waxtu weeg boobu nu wax li xaqa moom kooku la yoon tur du jàppoo ne xada waa fay na waxtu woo gis rek xam lu cay xaqi la borom yéen ngir maamin waxtu na amul benn waxtu hmm. yéen it woowu dana mu dikk illa wadim laye bara woo ñaar la yàlla alayka hmm. war la bii di waxtu woowu hmm. xaqu naa ko jadi maa daa di xeet wa amul albaraki noonu daa di pare waxtu wu mu mën a doon buy dikk waxtu wi day làmboo loo xam ne xàq sama borom la di waxtu xam nga nit benn mu nekk xewal wala mu ne ci kii. Hmm. wala muy soxla waa jaamu yàlla. wala hmm. muy soxla waa mu. Hmm. est-ce que koo gis ñaari ay jëfam. muy génn. yow boo nee ni xewal. xewal googu xam si àq sama borom. mooy nga def sant. sant am lu muy tëddee. ci teggin boobu xam nga jaase sama borom. mooy hmm. nga muñ. Hmm. am teggin seen diggante sa borom. Hmm. muñ moo xam nuñ ko doxale. ay waxati. soo nekkee ci topp yàlla. waroo xam xaj bu di xaaw di sa bopp nen. da nga xam ne yàlla moo la baaxee rek. surangale la bi mu topp da ko feeñalee ci yow. kon moo la moo la moo la baaxee rek. nga gis ne bu ñaax de am. yàlla moo la war a ñaax. bonal te baax te baaxal bu dee mooy yàlla tuub nga wax loolu moo tax nit du am benn heure boo xam ne dara waru ko ci borom fa kee fa taxta di nekk ngay fayee bi ci waxtu woowu xaqal xëy na xaq weneen waxtu bu ànd ak yow lam tax di fayu la xaqal lay xaq yàlla bi ci waxtu woowu man xaqi waxtu boo ko wàccee ba nga wéy xaq ba nga ba doo ko defaatal a ah, buy xam ci ab waxtu ma hmm. mën laa faral nga dabaat ko ñu. baax na kon ñu jàng. di sa dund. laa ngay wax dëgg waxtu la woo de ko ñaal. xale bi amul lu toll ni tàngoor. Hmm. ah saxam bi ci la mën a dawee tàngoor yàlla. Hmm. ci la mën a daboo ngërëmal yàlla. waaw nag temps bi mu waroon a daboo ngërëmal yàlla su ko wàccee mu kafaar. dafay doon loo xam ne ñàkk na ko te dara mënu ko wuutu. voilà natt boobu ba mu dikkee muñ te bu muñoon am yàlla. ñàkk a muñ te dara du ko wuutu. ah xewal ga ba mu dikkee sant te bu santoon am yàlla. ah ñàkk a sant ga dara du ko wuutu. ak ba mu àgg rek. maa faata lu faat na mu. min hongri ko ci sa dund bi. Mm-hmm. laaxe wata déet wattu la woo de ko ñaan wa maa xasala lu am na nag hmm. la ka ñaal la minhu ci sa dund bi hmm. la qiimata déet qiima la woo de ko ñaan waaye bépp temps boo xam ne dundal nga ko ci luy gërëm lu yàlla hmm. xamal ne loo mën a tey ñàkk ca temps ba itam xam nga ca temps ba lu ko gën waaw bépp temps boo xam ne dundal nga ko ci lu neex yàlla ak loo mën a tey ñàkk ca temps ba xam nga ca temps ba lu ko gën ndax loo jamono ñàkk àddina la rek. te am hmm. nga ci yàlla. waaw wa man wa man tafudu saatun fi asri fi fi umrihi. takun alayhi hasratan fi qabrihi. waaw wa man tafudu saatun fi umrihi. takun alayhi hasratan fi qabrihi. mooy nit bu ko saa bu xamee ne temps mu wàcc ci dundam mu kasaara. su demee ba ca bàmmeelam rek. loolu dana ko métti. benn hmm. muy ku yàlla texeel. Hmm. mu gis lim xamee ci góorgóorlu. gis naa ba mu neenal hmm. lam ci mënoon a amee te perte na ko hmm. lu mu nekk nekk ci bànneex hmm. dana métti lu bu dee keneen waxe maa ahbabta soppaloo say an dara illa kon dana rek wa nekk nga am dan de jàmm li woo ñaan mu ne nit lu sopp rek dana jàmm loolu lépp loo xam ne sopp nga ko rek da nga yëngatu dégg loolu waaw Hmm. ki bëgg xalal hmm. fokk hmm. dana yëngatu yëngatu yoo xam ne pexe xalal moo ko jaayal ki bëgg daraja dana yëngatu yëngatu yoo xam ne pexe am moo ko jaayal bëgg leneen naka noonu waaye bëgg yàlla nag mooy man li may def yàlla rek tax moo tax nit su bëgg na def yàlla jëfam dafay dëggu ci bëgg yàlla waaw telu bu baax a baax ak ko fi talabil mawla mooy nekk ci xol sellal jëf mën a am waaye dëggu ci bëgg yàlla bu rek. jéem mm. ba mu sell sell yàlla rek du yomb. ma mm. ne maa ahbabta soppuloo. Mm. say an dara. illa kunta dara boog de jaam la woo ñaan lool. nit lépp loo xam ne am na place ci xolam sopp na ko dëgg dëgg rek. fokk dana yëngatu ndig loola. woo moom borom bi nag. lay yi bu du mu sopp. ànd ak koo na de jaam la xëy na ñaan ko. Mm-hmm. sama waral nag moom moom li mu bëgg. Hmm. mooy na la féetoo nag. Hmm. ndax it nag kenn du rëbbu. Hmm. ma ne kenn du rëbbu. mu rek mooy rëbb. waaw gannaaw kenn du rëbbu nag. wax dëgg yàlla war ñoo jaamu kenn. loolu mooy tax xol bi bëgg yàlla daf ci war a ñëw. loolu mooy tax soo demee bay bañ daxa. bañ nga mu doone yàlla la ko tax a bañ ndax moo la tudd bañ. soo demee bay bëgg daxa. mu doone dara ji yàlla nga jéem a rek ndax moo la bëgg. mu ngi ci yaakaar laataan soo. Mm-hmm. du ko jëriñ moom borom bi. Mm-hmm. temps du gas ak topp. Mm-hmm. borom bi loo ko jaamu jaamu. jaamu googu yokku ci nguuram gi daal. su ñëpp bokkoon baaxee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam. du yokk dara dara ci nguuram yàlla gi. law anna awwalakum. wa aaxirakum wa insakum wa jinnakum. kaanu ala atqa qalbi rajulin waahidin minkum. seen ñu njëkk ñaar ñu mujj ñaar ñu njëkk jinne yëpp. su ngeen seetoon ki gën a ragal yàlla ci yéen yéen ñëpp ngeen mel ni moom. te gën a ragal yàlla ki gën a ragal yàlla ci ñun yonent bi la. mu ne Falil maa zaada zaalika. fi mulki shay'a. wàññi dara ci sama nguur. di yokk dara ci sama nguur. wala te du du ko lor. maasiyatu ka sa mooy. loo ko mooy mooy. du wàññi dara nit ñëpp suñ dajeewoon kenn ku ne bonee ni seetaan yi. wàññiwul dara dara ci nguur ak yàlla gi. sin gu baax a baax wàññiwul dara ci nguur yàlla gi hmm. wa innama amaraka na mu la fiha fii ci lii muy topp hmm. wanahaaka mu tere la xanaa fii ci lii muy moy hmm. li maa ngi li nga xam ne yemoo dana mu dellu aleyka ci yow dalaa sant topp ndax sa mbir dajay jagee rek mu de la xaayee moy ndeg sa mbir fa rek Hmm. Hmm. tey da ngaa dem ci docteur. Hmm. mu seet sa yaram ba àggal. ne la ñam sàngam ba ko. gis nga docteur ba wax dara wax loolu. sag ba ñam bi. yokku dara ci wér gi yaramam moom. sag lekk ñam bi yow. wàññiwu dara ci wér gi yaramam. gis nga bu baax a baax. dund yi dal lay soxatee. ñàkk lay yéene ñoom. yoonam ci yow nga lekk loo neex. ak nga lekk loo naqari. waaye gannaaw lii fay waral feebar la. seen bu baax a baax. te bët kay bi. mooy la moytu ko. te loolu. njubal yi it mooy waral dem safara. borom bi xam ci ñun yërmande. tax mu ne moyu leen ko rek. loolu rek waaw ni nga gisee yenn ñoom yi la docteur bi xaayee de waral feebar. njubal yi noonu la waralee dem safara. te loolu bu baax a baax te borom bi li ko am yërmande ci ñoom lépp ñuy laajee biir tax mu ne da leen ko moyu rek hmm. docteur bi daf la laajee biir rek hmm. mu ne da ko moyu rek hmm. mu ne maa yafalu laahu bi ansaabikum in sakartum wa amantum yàlla bu ngeen ko santee gëm ko lu ma defee bugal leen bugal leen amalu ko njëriñ amalu ko benn njëriñ waaye gannaaw nag ñàkk a sant dafay waral bugal na te miiri leen mujj. fay noo mujj ba pare noo dalee santal yoo rek la. ñàkk a gëm day waral mbugal. te miiri leen mujj. fay noo gëm leen rek. loolu rek la. sel na ku baax a baax. njubali dafay waral dem safara. te sama borom bi de ko am yërmande ci jaamoon ñi. de ko mën a jagal itam. mu ne leen ko xaaye léegi ni muy jur. waaw loolu rek la. waaw. mu ngi mel docteur bi nga xam ne ku laaxalaa loolu maanaam amul amul kenn. waaye nag li fi def ci lañ koy xam. moo tax boobu booy jàngale li fi def. doo mën a ñàkk a pour li fi def. waaw waaw mais docteur bi nga xam ne ku la la biir la. te xam feebar lool nag. mu seet sa yaram. ba xam ñamu woon ñamu baaxul ci yow. mu ne ñam sangam de ko moyu. léegi yow sax lekk ñam woo waree. dara dara ci biir yaram moom moom mi la wax sa bàyyi ñoom woowaale. Hmm. wàññi wut yokku dara ci biir géramam moom mi la waxoon. Hmm. kon waxul la ko ndig moom tamit. Hmm. déedéet. déedéet la ko baax a baax. waaye xam naa day waral wéré di rek. te bëgg na laa teg dara yoonu wér. taw la waxoon. <laughs> rek la rek la. ay gi ñuy aaye mooy yàlla. noonu rek la mooy yàlla dafay ju dem safara. te safara am ñu yërmande rek. tamu nañu baleen ba rek. rek la rek la. xam nga lu nekk lan dégg la yemale ji. te loolu amul ñoom li baaxul ci yow. du liggéey ci sa yaram moo baax. Hmm. mooy yàlla yi baaxul ci nit. Hmm. kon du jural nit loo baax. bi. Hmm. taatu ka sa topp yokkut ko dara yokkut jàllam gi dara. wala ta duru du ko lorin nag. masiyatu ka sa mooy wàññiwut ci yàllam gi dara. way na ma amara ka digal na mu la biyaas yi lii muy topp. wana haaka tenkara la xanaa fii lii hmm. muy moy hmm. li maa ngir li nga xam ne yaxoolu dana mu dellu xaleyka hmm. ci aw ndég loo xam ne sa njëriñ lay do baax a baax len lay demee noonu lay demee yi nga lu mel ni ila qudiyat al fantasiro fil ardi wabtagu min fadlillahi waskurullaha kasira tawa min fadlillahi waskurullaha kasira xam nga dafa santaane góorgóorlu ci liggéey jàmm yàlla mu ne naan la comme tuum li ma xam nga yéen a jaa texe loolu moom lu mu jaa xam dara xam nga loolu mu ne naan la comme tuum xam nga yéen a jaa texe loolu lu mu jaa xamu ja dara di te loolu ak wala tarkanu illa alladina zalamu xam nga dafay xaye ànd ak ñoo bon mu ne fa tamasa ku mu di lakk loolu lu mu koy wàññi mu wàññi wu dalilin hmm. lin xooli waadihi hmm. ala sifaati sarin hmm. lil masali mu ne boo dee ko am dégg nga dee seetlu taalimu sarin ye bu baax da nga am yu leer ne sëriñ a defar mbiram nit ñor na ko waaw mu ne soo dee ku am dégg bu baax xam ne bu gisee dëgg bu gisee wax na mu xamee mu ko war a déggee. mu ne boo dee mel noonu. ngay settantal jàngale yonent bi sallallahu alayhi da nga xam ne sëriñ bi defaral nit ñi seen mbir ñor na wa kam dalilin. lil uquli waadihi. ala iltifaati shar'i. lil masaalihi. xamuñ lu ko waxee rek. waaw seetlu bu baax a baax. fii maaridil minnati hmm. wa taalili hmm. mu ne tey boo jàng alquran hmm. barabi santaane yi ak barabi hay yi neex na ci lu gën a bëri bu ñu la santee dara dañ la wan dara jëla moo jëriñ loo xamee lii ja lii jar na ne lii loo xam ne boo amee yow rek lay nekkal lu gën a bëri bu ñu la hayee dara dañ la wan dara ca la may wàññi. Hmm. loo xamee liñ la xaay ni jar na moyu. Hmm. te la may wàññi boo ca muccee mucc ga yow laa jëriñ. Hmm. waaw wa kam dalilin. lil uquli waadigi. ala sifaati shar'i. lil masaligi. mimma ataa fi muhkami tanzili. fi maaridi l minnati wa ka qawlihi jalla yuridu llahu mu ne jalla yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla yombal la bëgg ci yéen ka qawlihi jalla yuridu llahu gaalib wa dalika muqtadahu lu gën a bëri nag ci tëralin sariya bi noonu lay demee booy jàng alxuraan lu gën a bëri bu la santee dara rek dana la dara ci la muy jëriñ loo xam li lii day jar na ma sant te loola boo ko amee yow yaa ko jëriñoo hmm. ñaare buñ xayee dara lu hmm. la wan dara ca la may wàññi hmm. nga xamee ni lii de jar na wattaleku liñ may xaye te loola ci mucc yaay jëriñoo mucc waaw moo tax képp koo xam ne am na dégg dëgg dëgg dëgg dëgg rek dana xam ne borom sérient bi defee mbiru nit ñor na ko lool moo naa nekk ma ci leneen laa nekk moo xam nekk ca la nekk ñun li yàlla buñ ko fekk ku naan moom lekkul ci sëriñ bi ca leneen la nekk leneen am la moo xam ñun de yàlla buñ ko fekk ci nekk àll bi ñun de yàlla yàlla mu fekk ci loolu xaw ma ne ma ku naan moom lekkul ci sëriñ bi leneen ca la nekk leneen am la moo ko xam waaye ñun de yàlla buñ ma saa ànd kenn ci fekk sëriñ bi te loolu baax ma waa jëli baatu mooy ànd ak nit ñi dem safara ànd yow kenn dem ay jënd ko yaa ngi koy gannaaw sëriñ bi bu la yóbbu safara la lay xaye bu la yóbbu àjjana la lay sant ah teggi ko moom fooy am ndax képp ku ne newuj ak lam ne moo ko xam loola moom ñun suñoo newuj waaye yàlla buñ ko fekk ca ñàkkaane ga yàlla buñ yàlla nattoo ñàkkaane ki ja wa kam dalilin hmm. li noo xooli waadihi hmm. ala iltifaati sarin lil masalihi hmm. mimma ata fi muhkami tanzili fi maaridi lminnati wa taalili ka qawlihi jalla yuridu llahu gaalibuhu dalika muqtadahu ba mu àgg rek ko de loolu la gis moom borom téere boobu loolu la gis lim gis na mun d'accord nag loolu la gis loolu lim gis na mun d'accord nag waaw la wax de ndax daa wax ne taklif liñ ci jublu mooy xaajale nit ki ak bànneexu bakkan hmm. nit ki xaajal bànneexu bakkan hmm. kenn ci yàlla hmm. loolu moo koy tax a dund ci téye son borom dund ci mucc ci duniya mucc ci seytaan kenn waaw waaw ah, nit ki forcé bakkanam jox gannaaw xawa xenu ci yàlla loolu lañ jublu ci de togg nit ki liñ koy togg ndax loolu képp moo ko mën a tax a dund ci hadratullahi hmm. dafa dundee bépp amaan hmm. waaw boo demee bi way yi mu wax la bunt ba mu nekk fa mu dalee hmm. mooy alqasdu bi taklifi sarful xalqi an daayati nafsi na wal haq mooy taklif na li mooy jëriñ ñëpp ko li mooy jëriñ itam jamono bu ne lañ ko soxla li muy jëriñ itam hmm. fu nekk lañ ko soxla hmm. loolu moo tax surtout taklif bu xasee ba ñëw ci nit ki rek hmm. nañ xamee moom moom mu kalam la duut ne taklif góor da koo jagoo wala jigéen bokk ji duut borom kawar bu weex moo ko jagoo borom kawar bu ñuul bokk ji duut ku ñuul moo ko jagoo ku xonq bokk ji duut ku jàng moo ko jagoo ku jàngul bokk ji duut ku duut duut ku dëkk barab sàngam moo ko jagoo ku dëkk barab sàngam jagoo ko duut heure sàngam lay sax heure sàngam du sax yooyu amul moo tax wa huwa ala al-humumi hmm. wal idlaaqi hmm. fi nnaasi wal azmani wal asaar hmm. mu ne taklif loolu ko tax a jox nag ba ne képp ku am xel xam bu settantalee ci taalimu sariat war naa na ko lool bu ñu jàng alquran loolu la ñu gis santaane yu bëree bëree bëri dana jaay teg luñ xamee ne lii ñu ñu dee suñ te jar nekk ci li ñu sax. te loolu baax a baax. danañu man dara ci la mooy jëriñ. li gox taxawoo min mm. fadlillahi. waskurullaha kasiran. li nga la'allakum tuflihuna jàng texe texe jar na loolu. wala ko. wala taskanu illa alladina zalamu. muy tere. ba tamassakumu naar. mu ci ci safara jar na mooy loolu. waaw loolu baax a mi ci yow lay dellu de. waaw yow ci moom de. la réer man ñeme wu ko dara. xam nga def nga xaw a xew waaye man ko dara. ñeme wu ko jublu naa alayhi ci moom. yow yaa ngi góorgóorlu heure bu ne nga defee loo gërëm loo yee yàlla. diggante noo koy tuddee de ko màggal. Hmm. mooy taxawee ci santaaneen. Hmm. loolu yokku dara ci yàlla. Hmm. ndax lu feeñ ci yow rek moo ko def. lu feeñee ci yow rek. yan kudu du wàññeekoo. mais du wàññi mi ne si ci teddam. it man du muyu koo xam rek. at bara dëgg naa ko. naka nit ki ak lu mu tëggee yu tëggee yu tëggee yu. ak lu mu niru niru ne ku ñàkk soxla ci borom bi tabaraka wa taala. teggeyum googu wut dara ci yàlla yàlla ji. Hmm. déedéet. Hmm. ndax ga moom la lay njëriñam. Hmm. teggeyu ga moom la lay alkaane. njëriñ li ci moom lay dellu. ala bu gi ci moom lay dellu. dégg nga. li mu wax dëgg la de. waaw ah, mu ne wakkam dalilin. lin uquli waadihi. ala sifaati sarhi. lin masalihi. mimma ata bi muhkami tafsili fi maaridi lminnati wa taalili ka qawlihi jalla yuridu llahu galibuhu dalika muqtadahu liñ naan joti ci yàlla joti ci yàlla mu ne wusoolu ka sax joti ilallahi jëm ci yàlla wusulu ka mooy sax joti ilan xel mi jëm ci xam bii ci moom bu ñu waxee joti ci yàlla hmm. mooy xam nga yàlla hmm. jàngal ne la ci taw yi ne borom bi samian la basir la hmm. heure bu ne rek sa xel mi di yëg ne yàlla ngay dégg sa lépp yàlla ngay gis sa lépp ba loo ko bëgg mu déggee la fa rek da nga koy wattandeku loo ko bëgg mu gisee la fa rek da nga koy wattandeku dem bi xol bi di dund loolu lépp ci meloy sama borom mi lay jàngal ci taw yi xol bi da ko dundee noonu waxtu bu nekk mooy loolu ma alwusuulu ilallah Mm-hmm. wéy laa budul loolu. Mm. fajal la maa gën rek mm. bu naa borom suñu. ay yetta si la bu jokkoo at bii jëm suy woon dara. Mm-hmm. da ko fekki foofu. Mm. loolu loolu matali. ay yetta si la wala buy jokkoo woon daal ak dara. kooku jox ma na. xur bu ka jege. mbir wu ci borom bi. bu ñu waxee sag jege yàlla. anta koo ne mooy musaahidan di aji yëg li xor bi jege tam mooy nga yëg nim la jege loolu mooy jege nga yàlla mm-hmm. mooy yow nga yëg nim la jege mm-hmm. te dara ump mm-hmm. wa illaa bu dul loolu famin ayna fan la nekk si fan la tukkee adde wujoodu xor bi axam ak jege su dul loolu yan ad yow foo nekk yow bañ naa yow sori nga yàlla te su lépp moo koy doxal waaye boo yëgee ne jege na la loolu mooy yow jege nga ko soo yëgul nag ne jege na la. loolu mooy sa sori ko rek. alxaqaa'iq. alxaqaa'iq ko xaqiiqa yi. dana de digg. fii xaalati tajalli ci jamonoy tajalli tajalli mooy borom bi tabaraka wa taala dala indil ay xam-xamam mbiram yàlla defee ci yow. muy malaatan danañu ma masan. wa baadal wax yi ci gannaaw mokkal. yëkkoonu lay am albayanu ci rey mm-hmm. léeg-léeg sama borom tabaraka wa taala da jox jaamam bu mu tànn xam-xam mm-hmm. waaye jamono bu koy indil xam-xam ba mm-hmm. dafay doon luñ bu mbëstan su demee ba ca kanam la jaay door a xam dégg waaw ah, nga ba ca kanam suma alhamdulilah yéen ka bal takk nga ko bu baax a baax waaye def nga woo xam dem ba ca kanam mu leeralal la lum mu wan la loo xamee lum de loolu dafay am ya dono la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. bu ko Jibril daal andil wayu hmm. bu Jibril da jàng bañ a fàtte li Jibril da wax dafay tax muy toppat njàng mi borom bi ne ko laa tuharrik bihi lisaanaka lita'jala bihi jarul inna alaynaa jam'ahu wa qur'aanahu ñoo koy dajale وإذا قرأناهم فاتبع القرآن والليل luñ la andi. fexeel ba moo xale fa ni la ko waxee. summa inna alayna bayaan leeral bi ñu ko. dina awliya wala ma ci am na mu doon léeg-léeg sama borom bi def dara ci xelam ni. lu ci takk bu baax ne man daa sama xel mi nanga ma ngi. waaye bu demee ba ci kanam lay doon xam ma. loolu léeg-léeg dafa am loolu léeg-léeg dafa am. Hmm. mu ne mata waradat waxtu wu rootee hmm. alwaaridaatu way rod yi hmm. alilahiyatee ko jóg borom ilayka jëm ci yow hadamat mu mab alhawaida haali alayka ci yow mbiram sama borom tabaraka wa taala lu gën a bari bu dëkkalee jaam rek bakkan du sama di ñoom doole alhawaadu sama di ñoom doole ndax lan hmm. innal muluuka buur yi isa daxaloo bu ñu tàbbee xaryatan dëkk ak suufu buur bu dee lu dugg ci dëkk hmm. lu ko fekk daan la génne hmm. te ay muloo alwaari du waari te muy biir yàlla yaati dana mu dikkee min xabarat ci xaxaarin tukkee ji te yéen mu tàggoo yaa ngi zaalika ngir loolu la yu saa di mu xool du ko mu soowu daa. illa dana ko ba pare bu faam. ba naqa bi bu bëri xaq. ala zaati li koy am na ko. koy la ko saa yàq leen jàng. léegi jël dëgg sànni ko ci baatil. mu dal di ko faam bu yore baatil jàng. kon dañuy jàng lii. te ba ñëw incha allah. incha allah. waxtu bi moo